ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp euh, di wax ni gis nañ ni euh, ñu ngi euh, seetlu ni depuis 2012 gouvernement du Sénégal dafa am ay dogal yu am solo yu mu jëloon boo taxoon nag prix wàññeeku bu baax njëg yi wàññeeku bu baax a wax par rapport ak 2011. Euh, ñu bénéficier nag 2012 depuis 2012 donc juróom-ñeenti euh, ak pris yoo xamante ne vraiment euh, yu abordable la yu yomb la waaye dañoo seetlu ni ak pandémie bi prix yi dafa yokk li ko tax nag moom mooy comme ñun lu bëri dañ koy jéegaane foofu nga xamante fa la ñuy jéegaane non seulement prix yokk na waaye tamit pour indi produit yi dafa am ay jafe-jafe. gouvernement du Sénégal nag depuis janvier deux mille vingt et mu daal di ay dogal pour wàññi njëg li donc mu renoncé TVA ci yenn produit lu mel ni par exemple blé looloo tax ba léegi mburu mi yokkuwul waaye malgré loolu gis nañ ba léegi euh, problème yi day continuer rek au niveau international ndax njëg yi dañuy yokku rek looloo tax nag tey jii ñu woote conseil national de la consommation. ginnaaw bi nga xamante ne état bi am na yenn mesures yu mu jël pour vraiment yokk koom population bi donc réunion bi ñuy def tey euh, dina ñu may euh, directeur du commerce intérieur ak ay services ñu daal di ñëwaat présenter ñu euh, situation marché bi au niveau international ak li mu am comme impact fii ci Sénégal et donc dina nekk occasion tamit ñu xam. taxawaay bi nga xamante ne moom la ministère du commerce et des paiements am ci wetu askan bi si moment yu toll ni mais dina nekk aussi occasion pour ñun ñu xool par rapport ak mesures yooyu nga xamante ne état jël na ko déjà pour yombal njëg yi yan yooyu yeneen mesures yoo xamante ne conseil bi daf ko koy proposer pour xool euh, na la ñuy améliorer toujours pouvoir d'achat population donc maa ngi am yaakaar ni Euh, ci biir waxtaan bi nga xamante ne ñu ngi koy amal ak 16 millions de consommateurs sénégalais ku nekk di nga xam taxawaay bi président de république am ci wet population Sénégal ak toujours nu mu leen di fàttaliyee euh, que euh, mu ngi leen di accompagner pour accroître toujours seen pouvoir d'achat maa ngi leen di di leen di